mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu nekk fii ak euh, docteur Ismaila Ceesay nekk parti candidate bu euh, Citizens Alliance docteur Ceesay ñu ngi lay nuyu di lay jaajëfal. jërëjëf Fred. waaw euh, waxtaan bi nag nekk seen tukki bu dem seen tukki bii nii Abuja waaye yéen bi nekk si Gambia fii ngeen di dem Abuja lu fa nekk. Abuja kañ dara nekk fa lu dul waxtaan waxtaan boo xam ne fii lañ ko tàmbalee woon fii Gambia fii. Euh, boo xam ne ñëpp xam nañ ne depuis bu ñu yóbbu draft constitution parliament euh, ñu reject ko foofu noonu nga mel ni ne ah pour demaat élection ak 97 constitution bi du loo xam ne mooy baax pour réew mi ak pour démocratie réew mi so am ñu jël matuwaay ne naka lañu mën a waxtaanee pour gis ne am nañ constitution bu bees waxtaan yi commencé décembre fii nii ñu jël benn organisation bu ñëw international idea ñu jox leen liggéey bi pour ñoom ñu seet naka la mën a waxtaanee ak parti yi pour d'accord mën a am juboo mën a am pour ñu mën a delloowaat constitution bi. idea xanaa mooy organisation boobu dimbale woon sax CRC ci bind constitution bi. waaw bi ma lañ CRC bind constitution bi provide nañ training pour CRC members yi. provide nañ training tamit pour TRRC euh, commissionnaire si tamit dimbali nañ si transition yi Gambie bi depuis bu transition bi amee ba léegi ñu ngi jàppale Gambie. mu mel ni kon duñu gan ci biir réew duñ gan yàgg nañ fi liggéey te duñ gan tamit Africa ñu ngi liggéey si dëkk yu bari Africa ñoo xam ne ñu ngi try pour consolider seen démocratie ñoom loolu mooy seen liggéey euh, façon organisation boobu la so ñu gis ne ñii ah ñi xariti Gambie la ñoo xam ne dañ nañ di liggéeyal réew mi tamit si transition bi. ne ñu jël leen pour ñu mën a jiite waxtaan boo xam ne dina mën a si parti ñoo xam ne ñoo nekk si parlement bi ak ñoo xam ne tam nekkuñ si parlement bi pour waxtaan mën a am juboo mën a am pour ñu seet naka la ñu mën a delloo constitution bi international idea nag ñu ne comme que nii la demee kon ñu isi ay kilifa yoo xam ne ñoom tam mus nañoo bokk si waxtaan bii ni ñoom tam mus nañoo gis seen boppa si façon yi seen réew ñu am ñaari nit kuñ amoon mooy Jona Goodluck Jonathan former président ak Obasanjo waaye Obasanjo am ijam bi mag la léegi pare wérutoon noonu nga esi Goodluck Jonathan pour mu ñëw jiite waxtaan yi pour juboo mën a am si diggante parti yi mm-hmm. mu ñëw fii nag ñaari yoon mu ñëw décembre ak janvier ñu commencé waxtaan bi pour seet yan affaire ñoo taxoon ba constitution bi mënut a naka la ñu mën a waxtaanee pour juboo am si issue yooyu noonu Euh, waxtaan boobu moo doon continuer. bi ngeen waxtaanee loolu lan ngeen gis ne moo tax ba ñu la waj constitution bi yéen mi toogoon ci waxtaan boobu. am na ay mbir yu feeñoon yu feesoon foofu noonu mbir yoo xam ne euh, moo taxoon bañ daax constitution bi mbir yu lu si gën a fés mooy rétroactivité bi. mooy ne ñu gis ne ndax président bi. Hmm. juróomi at bu mu am nii. mooy président Adama Barrow ki hmm. toog nii. ndax bi ko dañu wax ne term limit dafa am luy term limit mooy ne képp ko xam ne doomi Gambia nga nga nekk ñu fal la président loo mën a toog nga paase ñaari juróomi at mandat mooy ten years altogether waaye waxtaan bi mooy lu gënoon a fees mooy ne ndax juróomi at yu ar Barrow di def ni ndax dina bokka si ñaari juróomi at yoo xam ne yu la war a am su fekkee ne te su fekkee ne falu na 2021 maanaam ni mu toogee juróomi at yi bu fekkee dafay taxawaat élection bu dee yàlla may na ko mu wiin. kon mu nekk ñaar. waaw waaw dong lañ ko waaw ku nekk ñaari temps lañ la may waaw moom xam moom def na benn temps ba pare mooy temps bi waaw waxtaan gi mooy ndax temps bi dina compter dina bokk si ñaari temps yu ko luwaa di may. su constitution bu es bi duggee. léegi yéen seen biir waxtaan moo Adama Barrow. léegi si draft bi. Mm-hmm. dañ fa waxoon ne buñ laajtee Gambia nii. nekka diaspora biir Gambie ñu ne dañ leen laaj ne yéen da ngeen bugga Adama euh, euh, suñ defee time limit bi ndax time bi dina war a count ndax du count ñu bari nañ bugga time bi mu bokka si time bi Adama Barrow bi nga def loolu si constitution bi ne su fekkee ne sax Adama Barrow win na 2021 si ñaari mandat yu mu war a am bii ni bu mu def ba pare na si war a bokka loolu tax na ba eh, gars yi Adama Barrow yu nekk parlement ñu daaxa eh, eh, lifin bi draft bi parlement bi bi Goodluck ñëwee ngeen waxtaan da gis ne daal loolu loolu bokka na si ak tamit nu ñoo tànnee yi parce que si draft bi dañu wax ne su président temps di tànn ministre moom foog ministre yuy dem parlement parlement endorse leen maanaam parlement ne président yow kii nga tànn ni nangu nañ ndax nam mm. ndax di nga ko mën a def ministre ndax doo ko mën a def ministre parce que léegi si nu mu dee doxee léegi si constitution bu màgget 97 mooy ne président moo di tànnal ku mu neex mu tànna ba dañu wax ne comme léegi si démocratie lañ nekk léegi su président di tànn ministre moom su tànnee Fred ne man Fred laa bëgg mu nekk minister of information balaa Fred di mun a nekk ministre foog mu dem parlement parlement vet ko mm. ñu daa ko ne waa kii de am na jikkoom mm. am na xam-xamam mut na ko mut na ko pour mu nekk ministre ñu jox la ñu def ko ministre gars yi Adama Barrow yi ne ñoom bëgguñ loolu tamit mu nekk si constitution bi ak leneen loo xam ne moo nekk si xam-xam yi ak si jàngi education euh, euh, level yi président bi léegi si draft bi dañu wax ne ñaari educational requirements nga war a am hmm. wa nga war a am university degree ak grade 12 hmm. boo soo amee university degree five years working experience nga war a am hmm. soo amee grade 12 ten xaw ma eight or ten years working experience nga war a am boobu tamit mbir boo xam ne la dafa fisoon si mbir bi ak tamit dañoo tànnee ah, CFO eh, yi CFO lu mooy chief si. ah CFO yi moom dañu leen tànnee mbir la moom ndax am mën jot ci askan bi. exactly soo léegi ñaari mbir moo fa nekk mooy ne ndax président mooy tànna chef yi ndax dañoo vote. pour ñu tànnale mm. so mbir yoo fa gën a fis ak tamit 50 plus bi mooy lan xam nga léegi fu nekk ni eh, raw gaadu moo am waaw su nit ñi saane karta ku raw mooy gañe ndax su fekkee ne fukki nit sax ñoo la saanil yaay gañe mm. waaye dañ ne loolu baaxul si démocratie mm. dañ ne léegi kuñ war a fal at least xaaj yi ñu saani war nañ laa saanil mooy 50 percent plus one boobu dañ koo bàyyi si constitution bi so am na yu fees yoo xam ne yoo fa nekk waaye lu tax ba daa juba munta am mooy rétroactivité bi mooy ne ndax Adama Barrow suñ ko falee 2021 ndax taamam bii nii dafa compter si fukki at yu mu war a am ndax du. maanaam wiiri wiiri jaare ndaare daal Adama Barrow moo nanguwul ñu compter mandaam bi ci biir constitution bu ees. moom la moom moo nanguwul pour ñu compter bi si constitution bu ees bi moom dafa bëgg suñoo compter na commencé zéro so suñ ko falee sa dafa am yeneen. fukki at yoo xam ne mooy nekka si poosam yu mu mën a waaye yéen laaj bi mooy bu fekkee noonu la demee yéen dem ngeen Abuja Adama Barrow yónnee leen ay bañkat ku mel ni Sidi jaay ku mel ni Ambat Ba nga xam ne ñoom bañ rek la la lañ fa nekk moo lu ko arrangé ngeen yaakaar ne loolu juboo dina si mën a am. a ah, lépp waxtaan la ñun mënuñoo wax Adama Barrow patim NPP ah, kan la ñuy yónnee pour kooku dem représente leen parti bu nekk am nga sañ-sañ nga yónni ku la représente ñun parce que dañ gëm ne mbiri constitution lu am solo la si réew mi loo xam ne la waru ñëw yónni anybody rek pour mu dem représente suñu parti parce que loo xam ne la pour askan wi la ñun dañ ko jàppee dañ ko fulaaloo am loo ko fayda kon ñun dañ gis ne ñun ñoo war a dem si waxtaan bi pour ñu gis ne lépp loo xam ne dañ ko faa d'accord mu nekk njëriñi Gambia hmm. NPP nag ñoom lañ décide pour yónnee ñi ñu fa yónnee pour représenter lañ te ñoo ñoo fa ñu waa yéen door ngeen waxtaan bi fii décembre ngeen continuer ko janvier lu tax na ngeen war a babbee ko dem fële xanaa uh, fufu Nigeria bi moo gën a neex bu Gambie xam nga <laughs> dem Nigeria bi sax daf ñu xawoon a sonal tuuti parce que political leader boo gis dafa am agenda bu mu dee teg pour monte bi boo xam ne yaa ngi am liggéey bu boo xam ne bu am important yaa ko def si ground bi comme man ñu ngi woon si taux nationwide taux boo xam ne moo gën a amal suñ parti bi solo ngir de waaye ñun lépp loo xam ne mbiri Gambia la ñun dañ si di sawar ñun Gambia leen jiital dan suñ political party buñ ñu ooyee ne négociation si commencé na fii nii def nañ fi ñaari meeting ak Goodluck Jonathan ñoo na Gambia léegi dañ bugga balaa Goodluck di ñëwaat on the 8 of March pour ñu continuer waxtaan yi bugga nañ ngeen ñëw Abuja ñu amee brainstorming session ñu waxtaan pour prepare waxtaan buy am si Gambia on the 8 of March suñu Gambie ooyee ñun dañ jël suñu boppam jébale ko Gambie ne ñun Gambie lañ bëgg a liggéeyal mm-hmm. kon fuñ ñu oo pour mbiri Gambia ñun foog nañ ne war nañoo mën a dem foofu noonu mm-hmm. fu mu mën di nekk nag ndax Nigeria la ndax waaye demuñ fa ngir neexaay parce que xam nga tukki naka la mel mm-hmm. fii lay Nigeria di nga toog si flight bi si yoon bi di léegi 12 hours because soo balaa ngaa génn sa kër be bala nga eh, nga aga Nigeria ak transit yi yëpp di nga wàcca dugga plane egat wàcca bala nga aga Nigeria ak covid-19 test yoo war a def ak coono bu si nekka dëgga dëgga dëgga dëgga nag ah, coono gi rii la no waaye ñun Gambie moo ñu ko jaral loolu moo tax ñu dem Nigeria bu ñu ooyee ne da ngeen a ñëw Nigeria pour waxtaan gi ñu waxtaan ñu préparé yooni yoon boo xam ne bu wala gul di def Gambia ñu gis ne ok comme nga commencé nañ process bi ñun ñu ngi bokk si process bi fu ñu oo pour ñu waxtaanee mbiri Gambia ñun war nañ faa mun a teewee moo tax ñu dem Nigeria. léegi dem ngeen Nigeria waxtaan gi lan ngeen fa tënk. comme ñu ko waxee mooy ne Nigeria ñu fa demee demuñ fa woon pour am consensus si mbiri issue lu ñu fay mooy ñu dem brainstorming session lañ demoon pour waxtaan boo xam ne moo leen taamale woon Gambia décembre ak janvier pour ñu demaat waxtaanee ko ku nekk nga xam ne lii ak lii ak lii lañ d'accord yii ak yii ak yii lañ d'accorduñ pour ku nekk nga préparer pour on di it su gurloog ñëwee fii nii waxtaan yi mën a continuer fekk duñ si am benn jafe-jafe loolu moo ñu fa yóbbu te defe naa ne loolu lañ fa def so yaakaar bu ñu fa doon dem yaakaaroon ne dañ faa dem am d'accord si mbir yu noonu yëpp wala juboo si mbir yu nekk lu ñu fay wu mooy ne ñu dem am brainstorming session man si man gis-gis hmm. def nañ ko brainstorm nañ ah, te ñu ngi yaakaar ne gulloog mu nga ñëw on di suñuy waxtaan dina mën a continuer. waaw léegi si biir waxtaan boobu. ndax yaakaar ngeen ni président Barrow dina nangu lu mu leen bañal ba léegi maanaam taamam bi ñu compter ko. Ah, président Barrow daf ko war a nangu ah, si waxtaan yu ma seetloo ngum ñu fa nekkee ah yàlla baax na. Mhm. parce que négociations la. am ngeen yaakaar la léegi léegi ngeen demee si kanam mu dang waxtaan la si lu nekka léegi ngeen demee si kanam ubbeeku am waxtaan yi mën a jëm kanam waaye fu mu nekk nii ñun lu ñoo ñaax président Barrow mooy ne. moom fu mu nekk nii mooy njiit bi te dafa loo xam ne loolu la waxoon askani Gambie buñ ko doon fal mooy ne dafa ñëw pour def ñetti at te dafa ñëw pour ñëw soxal démocratie Gambia ñetti at yooyu ñu dem ba si biir mu bàyyandeku boobu demut hmm. mu ne léegi juróomi at si diggante gi mu fom political party waaw loolu du woon lu mu waxoon Gambia de léegi ñu si jamono joo xam ne is either ñu am 97 con a new constitution hmm. or ñu go back to the 1997 lépp nag si loxo président Adama Barrow la des parce que mooy njiit luñ koo ñax mooy ne mu xam ne Gambie ni dañ ko fal pour mu def benn façon ngi liggéey lii a tax ba duñ mën a amee ñu constitution na gis ne fu mu nekk ni su dee dem na ba dang ba fu mu nekk ni mën nañu amee ñu constitution mu nangu rek ne na five years yi count waaye moom su bañ ne du count ñu tam buñ ko si toppa nañ seet loo xam ne mooy njëriñ Gambia. parce que 1997 constitution bi baaxul pour ñu demee ko élection. parce que amul term limit amul 50 plus one te gis nga suñ demee élection bi di 1997 constitution ku gagné yaa ngi am a free mandate next five years. kooku tam mun naa wax ne. kooku mun naa wax ne. suma term bi bokkut fa bokku fa. waaw soo su fekkee ne ñun CA e ñun ñun ñu ngi joxe suñ kaddu tey ne. Hmm. ñu su dee CA e ñun ñoo gañ gagné 2021 ñun dañoo meeg soo ñu yóbbu. draft bi parliament te ñun next term dafa count suñu term waaye tamit su fekkee ne Adama Barrow moo gagné comme lu mu def léegi dafa ne next term tamit bokk kon which means dafa am juróomi at bi nii moom am next five years tamit for free parce que loolu la moo wax so ñu loolu moo dañ bugga bugguñ ñu dem election without term limit parce que loolu moo gën a bon dan ñu ne añ leen bàyyi term bi mu jaala ah, boobu moom leer na fu mu toll nii léegi nag ci biir waxtaan yi moo am political party bu am solo tam soo xoolee ci ku nekk sa wàll ci politique sa cër am nañ fi cër muy PDOIS bokkuñ ci ngeen yaakaar ne mu ngeen tënk dara te dooy bokku ci mu doon loo xam ne amal na maanaa Gambia. waaw mën nañ ko def parce que da war a am ne 16 political parties ñu nekk Gambia 15 yëpp bokk nañ si process bi su fekkee ne benn ñu ne ñoom bokkuñ si process bi loolu warta tax ba process bi du mën a continuer su fekkee ne. waaye ndax li ngeen ciy tënk. Mhm. dina représente Gambia dina ko mën a représenter parce que loolu moo démocratie suñ demee pour saani karta sax duñ dee wane hundred percent dañu war a votal parti bi pour ñu mën a gagné lu gën a am solo mooy majorité bokk nañ si ñun pour ñun loolu noonu fees na suñ botte xam nañ ne am nañ si yaakaar parce que 15 political parties si luñ bokk it means ne at least 90 percent of the electorate bokk nañ si mbir bi te seen parti ñu ngi leen ñu ngi leen faa représenter. waaye est-ce que fooguloo ne euh, waa idea ñu ñi mbubboo waxtaan bi ak ñoom Goodluck Jonathan ba tey war nañ mën a waxtaan ak waa doy pour ñu xam ne lii ba tey rek amul dara lu fa tardé am ngeen si seen cër. foog naa def nañ ko parce que buñ commencé waxtaan gi dañ approach all the political parties yu nekk ak Gambie ne leen ne nii la mbir bi demee te Gambie dafa war a am ñu constitution kale ñu toog ñu waxtaan ñu si naka la mën a décaler constitution ba loolu la gars yi saani si biti parti yëpp gis ne. ah su dee si njëriñi Gambia la pour ñu bokk si waxtaan bi kon dinañ si bokk doy gis na ñoom beneen gis-gis lañ am ne ñoom duñ si bokka te loolu tamit seen right la parce que politique gis-gis la ku nekk sa gis-gis parti bu nekk yaay am sa gis-gis si politique nekku ne ñoom seen gis-gis moo gën a bon ñun suñ gis-gis bi baax wala ñoom seen bos baax suñ gis-gis non ku nekk ak sa gis-gis la ñun Citizens Alliance ak yeneen 15 political parties seen gis-gis mooy ne si njëriñi Gambia la pour ñu bokk si négociations xëy na doo dañ gis na tamit loolu demeewut noonu te ku nekk ak sa gis-gis la si politique loolu mooy démocratie. may gënt nag si laaj bi maanaam ma gënt ne Adama Barrow ñëw na mu nangu ne léegi eh, suma temps bi dama koy compter ci biir ndax Gambia ma ñor pour jàmm am waaye foogaloon ne dina la dina laaj leneen de mun naa wax ne man tam waaye suma ministère yi su ma leen di fal. kenn du leen yóbbu National Assembly su boobaa ah, boobu sax fu mu nekk nii dañ ko bëgg a génne si constitution sax. parce que boobu noonu consensus am na si mbir boobu noonu mooy mbir yoo xam ne comme ni ma la ko waxee afam ay mbir yoo xam ne yooyu la gaa yi teg am na yoo xam ne parti yëpp nangu nañ ne yooyu noonu dañ ko faa génnee si mbiru parti yëpp nangu ne boobu dañ ko génnee si ko draft bi mooy boobu hmm. léegi parti yi nangu nañ ne su président di fal ministre du dem national assembly hmm. waaye dañ war a understand ngeen nanguwaat ak yan ak educational requirement bi nangu nañ pour ñu génnee li fi naka tuddaati sa university education university qualification nangu nañ pour génne ko fa. waaye nag soo amee grade 12 a am xam-xam tuuti. waaw grade 12 lañ fa def mooy basic requirement boobu nangu pati nangu nañ ak mbiri fayi jooji si. xam nga si draft bi jooji si dañ fa def ay provision yoo xam ne. seen retirement package dafa duufoon. Hmm. dañ ñëpp di complain boobu tamit dañ ko fa bëgg a génne yóbbu ko National Assembly pour ñu amee separate euh, legislation for that one so dafa am yoo xam ne ni ñi pati yëpp nangu nañ si yu si yuñ nanguwut mooy ne rek mooy retroactivity bi wala dañ war a understand ma lu maa ñaax gàmme ni mooy ne su ñëw waxtaan si mbiri constitution bi buñ focus si Adama Barrow rek. Hmm. parce que constitution bi dafa outlive Adama Barrow. ñu ngi build a constitution for generations to come mm. bugg ñoo ñëwaat fi in 2025 years time di waxtaanaat mbiri constitution loolu moo tax this constitution is more than Adama Barrow is more than Dr Ceesay is more than any other political party Gambia so loolu moo tax suñ ko waxtaanee ak anything lu ñoo decide si mbiri constitution bi nañ xalaat ëllëg naka la moo njëriñee askan wi. waa nga loolu rafet na wante wax bi mooy pour nangu li mu nangu ñu mun a delloowaat constitution bi si national assembly moo tax ñuy tuddee Adama Barrow nag. waaw fu mu nekk ni moo amee affaires si parce que moom moo ñëw mu ne bu moo campagne dafa promise ne su toogee daf ñu isil constitution bu bees kon koo xam ne loolu la promise mu ñëw toog ñu liggéey jël xaalis dugal ko si nit ñi dugal si ba am constitution moom si boppam muy xeex constitution boobu noonu kon Gambia ni war nañoo xam ne kii du koo xam ne war nañ ko óolu ba di ko dénk réew kon su élection jotee. ñu won ko ne yow doo xam ne kuñ la war a óolu pour dénk la réew kon ñu sànni kata ñu génne ko foofu noonu parce que koo xam ne la tamit nit ku ñëw nga promis da ngaa isi constitution ba ba mu am nga koo xeex kon yow mat matuñ laa waruñ laa dénk réew. waaw laaj bu mujj bi mooy buñ demee ba sës est-ce que mënuñu maanaam dem National Assembly seppi loo xam ne baaxul ñu ameen ko jëlangum lii. ba élection ba passé ñu jëlaat mooy constitution waaw xalaat boo xam ne la ñun tamit ñu ngi ko doon waxtaanee waaye ndax parlementaires yi ne danañ ko support parce que danga nga war a understand leen loolu du activité problème bi because boobu means ne temps bi tamit du count hmm. because su fekkee ne sax da nga jël 97 constitution bi nga ameen ko nga defa time limit temps bi du count hmm. parce que loolu mooy di nature of 97 constitution bi so da gis ne boobu du mun a solve retroactivity problème bi so xalaat bu baax la. waaye ndax 50 plus one ndax mun na faa nekk. waaw mun na faa nekk waaye ndax waaye ndax parti yu fa nekk. dinañ ko nangu dinañ ko nangu dinañ ko vote in parce que yëpp su dem dem ba ñëw mooy retroactivity bi ne am na parti yoo xam ne ñu ne bi dafa war a count wala bokkuñ si ñoom duñ support benn process su fekkee ne tam bi countul am beneen côté bu wax ne su fekkee ne tam bi dafa count ñoom tamit dañ ko frustrate so ñaari camp ñu war a toog léegi ñu waxtaan. ñu seet ñun lu ñu njëkk a mooy ne Adama Barrow dafa war a xam ne ah góor nag sa kaadoom sa baatam na sama kaadoom mu xam ne moom moo diggoon Gambien yi a new constitution kon war naa def kéemtalaay kàttam kàttanam pour mu gis ne am nañ a new constitution waaye su fekkee loolu tam amut ñun buñ ko si toppa nañ ko won ne ñu tamit ay gor lañ waaye ñu gis ne tamit buñ nangu lum nga ñu jox ko ko mooy na ñu dem élection ak 97 constitution moom loolu la bëgg mm. dañ simple majorité baa leen arrangé waaye ñun dañ war a xam ne war ñoo nangu tamit dem élection without term limit parce que suñ ko defee rek képp a koo xam ne kooku moo gagné 2021 mu ngi am another free five years ndax moom la ndax keneen la. waaye moom nag yàq na seen dara politiciens yi fu mu toll nii ñi leen gëm daal maanaam ci réew mi bëri ndax yow soo soo faloo ni nañu naka la ni ñu mun foog ne yow doo def ko moom ni mu defee wax waxeet. ñun soo parce que politique yi naxaate bi moo ñu sonal Gambia depuis bu ñu amee suñ booba bi léegi naxaate baa bari ñun dañ ñëw pour isi lu bees si politique pour nit ñi óolu politique ak politicien ñu politique ni ko gisee mooy ne liggéey yi réew te képp ko nit ku nekk da nga xalaat ëllëg sa liggée si moom muñ maanaam sa liggée si lépp loo xam ne yaa ko waxoon fii si askan wi ñu ngi ko bindal ñu ngi ko teg maanaam li askan bi di donnoo ci li nga fi bàyyi waaw si sa jaar sa jaar jaar kon ñun dañ gëm ñun lépp loo xam ne ñu ngi ko wax Gambien yi dañ see taxaw parce que ñun askan baa tax ñu dugg si politique dugguñ si politique pour suñ poos dugguñ si politique pour am tour dugguñ si politique nag pour palaas dañ dugg si politique pour gis ne ñu am benn façon ngi doxalin bu bees Gambia ni nguur dee doxee ak nu alali nguur bi naka lañ ko jëlee pour dugal ko si Gambien yi parce que tey dafa métti si xol ñun mi toog fii tey coow bi lépp mbiri constitution la waaye am na ñoo xam ne tey ñu ngi si dex gi North Bank Suruf fii ak biir Kombo fii sax ndox bu ñoo naan amuñ ko wama la ndox bu seen ndox sax bu ñoo naan amuñ ko waaye ñun ñu ngi nii tey si luñ nekk di focus mooy du naka la ñoo saafarale jafe-jafe Gambien yi si dundu gu gi si ñàkkaam ndox bi si ñàkka courant bi si ñàkka garab bi si hôpital yi nekkuñ ñu waxtaanee loolu tey mu war nekk suñu waxtaan tey naka la ñoo saafarale jafe-jafe doomi Gambien yi pour gis ne képp koo xam ne doomi réew mi nga. am nga ndox bu set boo xam ne di nga ko mën a naan di nga ko mën a sangoo nga jëfandikoo ko am nga électricité bu doy te doo fay lu cher sa dund dina mut nga mën a nekk si ngor ak si taraanga fekk sax doo sona doo torox ñu gis ne fu mu nekk nii képp a béykat bi mbéyam bi njëriñ na ko suñ xale mën a dem jàngi fépp fuñ mun di nekk nag waxuñ ñi nekk private school ñi foo mun di nga mën a am jànga boo xam ne la mën a njëriñ suñ ndaw yi mun am xëy ñu bàyyi di jël yoon ni géej bi pour dem bitim réew ñu moo war a nekk suñu waxtaan parce que jafe-jafe bari nañ tey suñ jumtuwaay suñu waxtaan yëpp foofu la waroon a jublu waaye tey ah unfortunately waxtaan nga jubluwut foofu si lum jublu mooy mbiri du naka la ñoo jiitee réew mi waaye kan mooy jiite ak ñaata at la faa war a def te loolu digga digga digga dafa métti si xol. waaw ñoom yaakaar ne métit boobu nañ ci gën docteur Ismaila Ceesay ñu ngi lay gërëm di lay sant ci jaar bi nga jaar fii ci Chronicle. Euh, suñu mbokk seetaankat yi ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak ñun jërëjëf docteur. bu jërëjëf Fred. yaakaar lay amaat fi beneen bés incha allah jërëjëf.